oto yi dama la bu màggatee état ko màggatal ndax état mo fi indi dem dik indi fu war gaynde oto bo xam ne def 4 ay retour 5 ay retour soo to ba soo oto ko defar waaye oto boo xam ne dafay toog ñetti fan ñeenti fan ah boobu oto day sew lu mu yóbbu këram benn mooy état mooy changé parking euh, pour wax jox naa léegi benn exemple ni la sen sen sen bis bi ni fi état de bañ ko bëggee dañuy am changé parking bi nga ni nga ni Ndiaga Ndiaye màggat bi ñu joxe benn tata kon état koy changé est-ce que ñun am nañu droit dem fekk benn oto ni oto bi day def transport loolu loolu état koy def ñu am ñu droit def ko moo tax la état moo taxaw nii oto bi moo def taxi moo def transport bi moo def lii boo def laa loolu mooy problème bi moo tax la du ci état la. du yaakaar dañoo faalewul état dañoo faalewul ndax faale nit da ngay def boo boo boo bindee jox ko mu wax ak yow waaye tontu wuñu faale wuñu moo tax syndicat yëpp nag xam ni. na mu bëgg a mooy syndicat bi ne lay woo ci pet naa la bul bokk ci ñàkk fayda yooyu est-ce que kilifa ba ñoom ñëpp xamandoo ni kon attaar ñoo bëgg a nax bi gars yi dafay tourné ba xam ñu tourné nag ñu ne woo gars yi dafa ñu tourné ba pare pour wa wan ko Sénégal ñëpp benn bopp lañu ndax dañuy seen ak syndicat kenn déglu si leen mooy seen problème ndax ñeen information yi ñuy jot baaxul ndax li ma la wax ci biir ñun dañuy bind di jox autorités yi dañuy bind bind ba sonn dañuy mujj sax. dañ yaakaar sax naan oto yi bind ñoo yóbbu suñu courrier mais du xam nañ xel courrier yaa ngi dem ña ca kaw ñoo ñoo ñoo ñoo liggéeyul fa ñu yóbbu courrier ñoo liggéeyul ñoo ko bloqué ba ki nga xam ne ki yor réew mi ma xam ne kon am ñu koy renseigné xamuñu dara kon. waaw dama la départ bi ba ma xamee ne gaa yaa ngi départ woone leen ci ci wet ndax man ci ñoom ci kilifa ñoo ma ko wax biñ tàmbalee ñu ngi tourné bi ñu leen woo pour jéem a leen kenn ku ne ñu woo la yónnee la benn courrier. ba pare xamal ne la nee bu bokk ci lii loolu nag moo tax gars yi lànk loolu léegi def tournée ba pare ba def tournée rek léegi nag amagu moo information ni wane ni wala woowu ñu leen. xam nga dama ne départ naa leen dama ne li gën tuuti benn laa jox joo xam ni laal na la laal sa morom yow da nga dem service de mine ñu ni permis bees yi moo génn nga dem passé ji ko permis mu génn ñaari junni ngay joxe su génnee pare ñu ne il faut mu amaat ñett weer ñu jox la beneen permis pen booba bu bees yi nga joxaat ti junni mu juróom benn junni fu mu tegu plaque yi 7000 francs 8000 la doon def ñu jox ko benn naxa naxa boo xamante ni yërëmul nit ñi xamuñu 40 quelque mille loolu loolu xaalis la lu technique yi ñaata lañ ci jël léegi loolu def 10 000 francs ba quinze 000 40 000 francs boo ko deful doo doo doo doo def service fees boo doon boo doon boo doon joxee 40 000 francs 80 000 ngay joxe joxe yi Euh, oto war gaynde yi fi ne boo jiitaloo legi ñoom léegi nga yor ab transport comment jëm Tamba dinañ egg Tamba do egg te dañuy dañuy rom montage yoone ñoom ñooy ëpp priorité lima ma wax léegi ci jakataay ak ak taxawaay yi jakataay ñoo ëpp priorité taxawaay yi ci dëkk bi ban jakataay gees ñu ñu koy rabaas ci dëkk bi daa am permis jakataay bi mu yor mu yor ab wëlis ci kaw yenn ko kii xam moom la supporté yenn ci kaw taximan bi bu jëlee ab wëlis ko ci maal bi ubbu ko rek ñu jàpp ko insécurité transport maal bi bu ubbu rek ñu jàpp ko ci loolu moo tax ma la war gaynde yi ak jakarta yi kalandoo ñu ñooñu ëpp doole ci dëkk bi lan moo ko def mooy état transport intéressé wu ko ndax dem dëkk yee bi nga léegi man la pour wan population bi nii état euh, euh, transport ko ña ne que loolu war da ko a ñi nga ni ñoo ñoo ko yeyoo seen métier la tata yi bi ñu ko jël ay millions la ñu fay ay millions. xam nga wax ngeen léegi nii am na oto bees ñuy imposé non état moomu mooy douze places yi état moomu ko projet bi jox nañ ma maa ngi moom ñi ñaa ngi ciy bindoot mais état momu ko cest dire dañ ko mu boo état mais état momu pour mu leer. Sénégal yëpp ñu ci jël auto bee sañ bëkkay ci jakk ñàkk pexe tax ñu ko jël oto cher na mais ñu ko jël. tay jafé jafé nga xamné am nañ ko transport deug deug tay képp ko xamni chauffeur nga man de war fa dama fekk Abdou Diouf fekk ablaye war fekk tay amul ben chauffeur bo xamni mën nga wax ni infraction bi lañ la jappé nangam. te ñu xamoon ci transport mooy dañoo amoon barème de factura barème de infraction buñ la jàppee ne nangam nangam tey barème yooyu dañ koo jël nëbb ko tey infraction bu nekk 800 wala 1500 boo ñëwee dañ lay imposé ne 12000 nga joxe kon kooku ñu lay woo ci ger gi donc à l'époque bi Abdou Diouf nekkee Senghor dañoo amoon barème de contravention infraction nangam infraction infraction nangam tey kenn xamatu lañ lay jàppee da nga ñëw pour ñu fay siimi kon ñoom loolu nga xam ne ministre bi ministre de l'intérieur ak euh, ñoo ko séq war nañ koo mën a génne officiel ko chauffeur yi xam fu ñuy teg seen tànk ak transporteur yi te tey loolu amatul beneen bi yow mun loo oto bi nga yóbbu ko transport traité ñu ñu ñu visité la ko ba noppi nga ñëw romb leen parabole fii ñu parabole parabole taasi li ñu ci xam mooy bale bu dul dem mais bale buy dem ak ñoom koy gis ñu la parabole taasi boo ko nee wan ma boo ko nee wan ma barème de facturation mun du ma wax a wan bindal la kayit bu ñu la war a defal nga jëm Tamba ñu war a defal fa attestation 24 48 heures da lay defal. 12 heures ou 24 heures pour yak sa activité bon bo né ma ngi dem commissariat bo ñu commissariat ñew ñu la simi nga né ba mu ngeen non ma li ma wara fay ñu la simi ngay fay nga dem ci poste fekk waaj tok mu la joxel doom nga jox nga fak mu dañu jox duñ la jox fakir so bëggé jël bo mu nga fay 6000 n'importe quel poste muy commissariat central di du gendarmerie fo ci man dem ndax man ñu waxe yow ma ngi tali ba légui dafa nan big may garage bi def ci opération 17 guddi jonne kon waxuma lo xam dama koy faral man transport laay dund bépp 1960 oto laay daw jusqu'à présent oto laa gaare jaar naa ci oto mag jaar bu digg doom jaar ci taxi jaar ci sept place ci wàllu réforme sept place ngay wax dafa am loo xay booy réformer bala nga koy da war a woo seen borom wax ak ñoom Abdou Diouf noonu noonu doon def mais doo dem jël si oto yoo xam ni indi nga nombre oto yoo xam ni amul pièce changé ah, nga ñëw di ko imposé oto yi moom laay joxe tey Sénégal fi tey nit ñi bëgg ñu ay 10 place bi toog ñu ni ko oto yi lañ bëgg mu tànn ci commission ñu ànd ak ñooñu dem à l'étranger jënd oto yi ko jaayi ko ci prix bi yenu maanaa mais su fekkee yow da ngaa dem ba gis ni transport bi dañ koo soxla am réew mënoo taxaw ni Sénégal émergent taxaw ni da ngaa bëgg ndimbali ndaw ñi ci liggéey lu tourné waat secteur bi lu mat 5 millions 6 millions population di si dugg dund nga bëgg xëy oto yi nga gaari ko kooku ma ne du xalaat tey foo dem ci CEDEAO muy Mali di Côte d'Ivoire di Bamako ñoom transport bi état yi dañuy tok waxtaan ak premier priorité lan ngeen ko bëgge mais ñom tay bëgguñu ko ñoo li seen oto teg ko à côté tëj la ñu lay yor yàngam bomari jall client bu ko 2000 dem bi Dakar kon client bi dañoo dugg ci ñun bay ñu saani parti te place yi ñu bon bon am na yo xam tay ñoo gëna fa rek lool mo leen ci war digoon diko wax pour mu leer waaw galankor yi bëri na trop comme ñu laalé transport yëpp non lañu laalé parce que kenn mënut a wax transport baye taxi parce que rôle bi nga xamante ni moom la taximan di jouer ci transport ñëpp xam nañ ko parce que client yi bi ñu ñëw ñun ñu war a indi gaaru ceer bi di ñibi tamit ñun ñoo leen war a yóbbu seen kër yi kon xam na ni transport buñ ko waxé taxi moo tax mais gis nañ ni depuis que le président Macky Sall accédé au pouvoir laissé en rade bi nga xamante ne ni bàyyi na ko secteur du transport rawatina taximan yi loolu le métier bobu moy daw ba légui mo waral tamit tay bi grève bi amé lépp li nga xamante ni mooy taximan la ak borom taxi yi ñu japp ci bok ci grève bi. lan mooy jafé jafe taximan yi waaw man ni sen grève seen sen jafe jafé bëri na c'est que problème bi moy dafa problème bi dafa xot xóotu ba nga xamanteni ni boy wax sax parfois da nga am problème foy commencé dama lay wax rek yow si tool ni boo jëndee taxi pour nga mité ko am licence rek jafé jafé bu mag ngay am parce que yow mëno jël ab taxi nga mité ko def ko catégorie sa tour ba paré li li li problème bi moy pour nga am licence dañ nan la na na catégorie bi talon bi génn bu talon bi génnee ñu la demal fay droit de stationnement nga dem fay ko ñu la daggal assurance nga dagg assurance

tay fi may wax yow ni say su la jaayoon taxi yow problème bu mag ngay am pour mité ko moy lan il fallait que man ma dem miite oto bi sama tour ba paré nga ñëwaat diko mité miite du koy du koy mën a yow sa tur tey mënuñu imaginer tay fi fi réew mi tollu ben carte grise ñu ne la euh, da ngay dem fay euh, impôt et domaine ba paré ñëwaat wara a fayaat Jamelto bi tay tey Jamelto moom moo changé permis de conduire permis de conduire comment commencé changé carte grise yi permis de conduire 10 francs carte grise 21 000 mu xey peut-être xamna def na fi quelques années un milliard d'euros hier d'adem j'ai projet entreprise française je ne sais pas au Maroc marocain nous nous avons imposé 20 000 francs catégories bien comme était ni matériel bien comme était les les matières pour pour matériel 000 francs nous nous 41 000 est-ce qu'il y a un qui sérieux? nous servir il faut au Sénégal mais mon frère si même pas trois ans nous avons 21 000, 42 000, sans personne. Nous avons interpellé le ministre des Transports.

façon boo xamante ni moom la ñuy jàmmaar la moom xeex